asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu déglu ak di ñu seetaan dal leen ak jàmm seen émission Barada Cash tey nag dañ ciy waxtaane émission yu am solo yu doy waar fii lay xewee comme ni ma leen koy waxee ñu war a waxtaane nag loo xamante ni moo di mbëggeel mbëggeel bu lal ak ànd ak téléphone portable ndax ku ci nekk xam na ni téléphone portable yàq na couple yi ci loolu dama leen di bàyyi ngeen nuyoog eh, kii sama ndijoor mu di Mbène mbenn nuyu naa fay naa la monsieur Samb di am mbégte ak contentement ci dalal bi ma dalal di nuyu sama collègue moo bokkal plateau bi beneen Samb bi mhm. di nuyu internet yëpp yi ñuy seetaan jërëjëf Mbène soxna Mbène Mamadou euh, nuyu naa la Mamadou Samb nuyu naa la maa ngi lay fay Abdoulaye mhm. di wax nag euh, sama jigéen yow mu prépare bu baax parce xiif naa ko est-ce que ëpp naa def tey jii daal maanaam doon kenn du bàyyil sa morom dara comme ni ma leen ko waxee rek tey jii ñu ngi fii nii di waxtaane loo xamante ni lëmbe jamono mu di amour ku ci nekk xam na ni amour jamono ji ñu toll nii moom rek la ñuy wax tout moon en parle tey téléphone portable aussi mu ngi ci biir ndax couple yu bari nee nañ moo ko yàq ci loolu damay bàyyi soxna mbenn mu ñëwaat ci moom laaj ko réellement lan mooy amour lan mooy amour amour mooy lan le vrai mbëggeel au vrai sens du terme man avant tout damay koy définir comme amitié ba mhm. pare mhm. nga xamante ni sa moitié la yéenay partager mhm. parce que dañuy wax ne mbëggeel dëgg ci amitié lay juddoo comme nag dañu nekk ay doomu mënul nañ bëggante du moment où mënul rek kon war nañ def le mais pour revenir ci ci thème parce que dañ ne portable yi dañuy yàq couple yi ah, loolu sax duggaguma ci mhm. portable mais juste rek amour pour xam lan moy amour réellement ñu may may yemandi foofu noonu daal voilà dëgg la ñu yemandi foofu kon damay ñëw euh, poser la même question à Mamadou Samb Mamadou Samb tay lo xam réellement dañ naan amour amour et qu'il y avait un philosophe qui disait l'amour n'a pas de définition parce que chacun a sa propre définition qui lui est propre légui ma bëgg la laaj yow réellement lan moy amour bala ñoo ñëw ci walu téléphone portable non mbëggeel dafa nekk lu doy waar. Mhm. loo xamante ne ça vient direct di Dieu. waxal ci kaw mhm. mbëggeel dafa nekk loo xamante ne. Mhm. suñu borom lay jóge. ci kaw lay jóge dafa nekk loo xamante ne. lu doy waar la doomu aadama mënu ko définir. parce que nit ki lépp mbëggeel la. sa diggante ak say waajur ak jàng bi ngay jàng nii sa mbëggeel la. comprends pas là mais malheureusement le monde de nos jours surtout fi Sénégal sunu jigen ni xamuñu bëggel te duñ ko dund yow loolu loolu gis dëgg la mom joxoñ na baramu tuuma ci jigen ni parce que buñ leen bëggee rek ci ñaar ñoo xamanteni ñoom ñoo kolew hmm. ndax dañ naan eh, kii du dem bàyyi morom bi kon ci loolu damay ñëw toujours ñu ngi ci mbëggeel bala ñoo dem ci téléphone portable hmm. parce que mbëggeel jamono ji ñu bari dañ koy confondre ak amitié comme ni ko suñu naataango mbeen waxee mbëggeel dafa doon loo xamante ni dafa doon affection c'est affective mhm. contrairement à l'amitié l'amitié c'est un sentiment d'affection mhm. alors que donc là c'est mutuel là c'est profond mhm. vous voyez ñoom ñaar nag dañoo wuute parce que des fois da ngay gis xale bu jigéen sax nga nekk ak moom amitié am ko te nee nañ amour bala moo am il faut que amitié lal ko amitié bi bu yàggee nag amour door a ñëw mais ci loolu amour boobu ben. est-ce que réellement des fois ni ñu jàppee amour ak amitié ndax euh, yow noo ko gisee amour ak amitié. ak amitié nu ma ko gisee man de toute façon man dama ne. couple boo gis war nañu nekk de très bons amis. Mhm. loolu laa gëm mooy sama philosophie. Mhm. parce que du moment où ne nañ. Mhm. amitié mooy moitié moitié. loolu mooy kenn ki mënul dem sans morom. sans morom donc mbëggeel bi tax ñuy wax. Mm, amitié mënu cee génn. loolu nga xalaat mbëggeel bi tax ñuy wax amitié mënu ci génn. Mm-hmm. Mamadou Samb toujours maa ngi ñëw ci yow moom fi mu waxee nee na mbëggeel bi ñuy wax amitié mënu ci génn mais tey jii dañuy gis aussi euh, toujours ñu gën a xuuse si suñu débat mm-hmm. mu di amour ak amitié dañ ciy wax chaque jour mais ñaar ñooñu kenn mënul dem bàyyi sa morom ci loolu. dañuy wax ni téléphone portable aussi parce que des fois da ngay gis ni téléphone portable tey jii jamono yi ñu toll dafa dugg ci couple yàq ko lool. Mm-hmm. léegi bu ñu jógee ci wàllu amour. téléphone portable nan la mën a yàqee couple amitié amour. non téléphone luy defar la. Mhm. téléphone luy defar la. Mhm. surtout maa si monde bi ñu nekk nii monde vingtième siècle. mais mhm. xale yi jigéen si boppam. ñooy yàq. ñooy yàq. ñu suñu nee portable day yàq xale jigéen ñoo tax parce que yow imagine toi yow nga am nga am far am cinq far ku ne nga utal ko numéro ku ne da nga koy utal numéro bu mu lay woowee ku la woowee na papa nangam day sóob <laughs> bu gëm yooyu ay papa yi nii ay nax la waaw bëgguñu kenn ay xolu car rapide lañ yor xolu car rapide lañ yor nee na yow loolu noo ko gisee man de lu ma deuxièmement nit ki da nga koy wóolu rek bala nga bañ ko wóolu. effectivement waaw nit ki boo ko wóoluwul kon mhm. relation bi amatul njëriñ. amatul njëriñ bien ñun nag nu ñu mel ñoom la. Mhm. lu ñu mel noonu ndax ñoom. ku ñu mhm. tuddee góor tudd ko jigéen. xool car bi nag ku mu métti. da def farat. lii rek mooy wax. mais demoo jàkk demoo église. bëgg am ay ordre yooyu jox. loolu moom mënul nekk. loolu yéeme na kon daal ça veut daal que daal ni ñu ko mën a gisee daal moo di confiance moo ko lal. nit ki boo nekkee moom bul xoolati téléphone portable parce que nee nañ kii seet sa truuf nit ki boo fekkee da nga am sa soxna nga nekk ak moom. Mhm. ba pare tamit mu yor téléphone portable. Mhm. wax ak ma wàllu couple rek ni ñoo xam ne sa yëguñu. Mhm. mais des fois di nga nekk couple yi tax ñuy wax. nga nekk ak nit téléphone portable yàq seen diggante. parce que du ngeen communiquer te communication dafa baax. ci ñaar ñoo xamante ni dañuy dencante waaye dencante yi dañoo war di waxtaan. waxtaan am na solo lool parce que eh, réeróo amul ñàkk waxtaan moo am. ñoom puusuñu. paasuñu. jàppale wuñu ku feebar. dimbale wuñu kuy waaj a dee. kuy waaj loolu nag ñun dañ cee sonn dëkk bi mënul metti ba pare ñu bëgg a ànd ak ñi nga xamante ne protocole kese. ñii du ñu def de. wax rek la ñu xam. wax rek la ñu xam. dañuy làmbat. bu ñu gisee bu ñu gënal ñu def ko ku mu metti nga def farat. lii kañ mooy wax ji. dëgg la soxna Mbène kon wax na lu am solo nee na yéen du ngeen jëf wax rek ngeen di def te nee nañ mbele mbele coola mhm. donc yow loolu noo ko xalaatee yow mi ah. en tant que góor sànq da nga wax am solo. mooy que nee na. confiance bu amul confiance. mais yow imagine toi yow koo xam ne cinq numéro la yor. cinq numéro la yor far la yor. si cinq sax dafa dafa tuuti. si xam baax may wax kii xam naa mu ngi gis. comme la baax ma la yow kooku nooy mën a ay protocole ay di dem ay kii ay jàkka. doy na waar moom jàkka. jigéen dafa war a gëm boppam. boppam lu am solo. toog fi nga war a toog góor ñëw fekk si la def ci farata man loolu laa gëm ah, mooy sama philosophie du ma gis koo xamante ne tey ji nii moo ngi ay cinq numéro may dugg ci moom laa koy dee nan lañ amee confiance ci kooku am confiance ci moom mënul nekk nan soppi seen bopp nan defaraat seen bopp defaraat toogaay kon ba tey ni mu ko waxee rek ñu bàyyi suñ mbokki internautes yi ñoom ñi nga xam ne ñu ngi commentaire ci réseau bi ñu na ñu dem fàttaliku suñu coach euh, maam coach Barma nee na woon jigéen soppal te bul wóolu est ba tey mu ngi am soxna Mbène. loolu ci ci nit ki lay dépendre rek. soppal te bul wóol loolu ci nit ki lay dépendre gis nga nit ki li nga xool ci moom rek loolu ngay gis te nag ñoom moom mi di wax te représenté fi góor ñi benn yi ko yées mu ngi ci ñoom ndax ñoom xam ci lu bon ñooñu ci entraîné ñun duñu def lu bon sans góor ñu def loolu wax nee na wax ji nañ ci tey yow noo ko di nga nangu ñu lay transformé transformé mag bu toll yow. dama ni nan la ko ñu def transformé. jigéen fu mu boolee rek góor a ngi ci wet a ngi nañ nangu loolu non gëwma loolu man gëwma loolu jigéen mën na baax mhm. benn góor du yàq jigéen man gëwma loolu quoi jigéen la ak non non jigéen yëpp laa mën a wax. moom du ko yàq ci wax ni jigéen la bu amee mhm. audace bu jigéen baaxul. <laughs> ci ban façon eh, eh, ma <laughs> Seigneur ba wolé yaa fi tuddu suñuy maran yaa fi tuddu suñu xol mais yow phénomène la phénomène la lan nga ñu phénomène bi ngeen def fere ngeen phénomène la phénomène la tay jéggal ma ci ki bi xam nga indi ñom ñoko fi indi la ñom ñoko indi ñom man duma ne jigen baax yalla téré man jigen rek la jigen rek la bëgg te man linguer original comprendre baama la kuy tag sa bop neenañ do te yow tamit yaa ngi sa borom kër te ku ci nekk dañuy wax ni l'idéalisme ku ci nekk daal da nga ni maanaam ka nga yor ci kër ga moo la gënal est-ce que réellement ñi ngeen yor wóolu nga ko yow ki nga xam ne mooy sa borom kër. dañ uh-huh. man lijjantiwuma leen ni biiram lijjantiwuma leen ni bitam mm. passé lijjantiwuma ko li uh-huh. présent man loolu laa gëm. am na solo moom nee na li présent la gëm yow est-ce que xale bu jigéen ba nga bàyyi ci kër ga réellement wóolu nga ko. waay sa waay yow tamit loolu mooy géej am na ndox noo ko gis kookoy géej am na ndox lingeer sama moom rek ci jongo ma du day booy des allah kon ñu leen di fàttali rek ñu ngi seen émission Barada Cash fii ci Sénégal TV kon ñu ngi kontaan ak mbégte toujours ñu ngi wax ci wàllu téléphone portable te it eh, ñu ngi jàllale suñu réseau bi di kontaan ci ñoom ak ki nga xam ne mooy suñu jigéen bi di xelli ataaya macha allah mën na ko tey saa su ne moom ñu koy defal ndax émission saa bu tàngee rek moo ñu yëngal mu di kon Seynabou gatchi ngalama jàllaleel jàllaleel jërëjëf donc ñu ngi leen di fàttali aussi tay ji ñu ngi wax ci walu confiance amour ak téléphone portable parce que téléphone portable bu ngeen xolé yàq ni réew mi ndax sa su ne bu ma gisee li mu yàq mu ëpp li mu ndax lan ci walu couple yi sax lay wax réellement ndax couple bo gis des fois nga gis euh, mu ñew téléphone portable mu bàyyi ko ci ki bi di sangu ji jëkke ji euh, soxna ci daw xolé ndax est-ce que message bi ñew réellement kan la léegi nag loolu mu xool noonu te en général sa borom kër di ko am ci biir kër muy liggéey chaque jour du am temps ndax réellement milieu bi moo ko laaj ay jigéen ay góor lay nekkal ah. yow nag boo ko wóoluwul ci li nga xam ne moom lay liggéey yow dootoo ko mos a wóolu le fait que téléphone teg na ko ko dew ko nga ñëw tijji ko xool léegi nag nga ne ko waa mais luy lii comme li waraloon rek ngeen baal ma mu pronostiqué tuuti suñu film bi passé ñu doon seetaan muy Pod et Marichou bi nga xamee ni Edu dafa jékki-jékki euh, téléphone kii Sala daal di euh, am benn message bu ñëw ci WhatsApp mu jékki-jékki xool ko rek daal di koy woo fekk Sala mu ngi génn di dem.

bu nekkul couple sax dañu war di communiquer nit ki bu ngeen dee waxtaan rek bunte néew ma du am mais mun na gëj ko nag mhm. ndax comme yàlla daf la suturaal ci ñi nga xamante ni jot nañ am borom kër ak ñi am ay effectivement yàlla suturaal na la ba d'accord nga ànd man lépp war naa lépp war naa mën rafet waaw am na solo nee na lépp war naa mën a rafet léegi yow tam loo loo xalaat ci solution bi nga xam ni eh, noonu lañ mën a def ba téléphone bañ yàq couple yi solution si benn affaire la mooy que lan premièrement mhm. nanu régler mhm. ñoom dañoo war a régler xam ne ak jigéen la te xam ne deme ñoom ñooy doon suñu yaayu doom lu baax rek laa leen bëggal yàlla buñ tim xam na ko ah, lu baax rek laa leen bëggal parce que dama yor mm-hmm. lingeer baa nii kii lingeer la xool ko nu mu toogee macha ah, mais gëmal sa bopp rek nga bàyyi numéro yu bari yi man loolu rek laa lay wax communication lan la uh-huh. mooy que la nga koy tàmm ba ngay nekk xale bu jigéen di jànqatu si ngay nekk di commune yu bëri far soo amee jëkkër tam c'est la bàyyi communication Euh, dëgguma la sax olof day faral di wax ni jikko boromam pax rek. Ah, ndax la nga tàmm ca ba muy door. Mm-hmm. waaw la nga tàmbu ca ba muy door mooy continuer. Ah. kon ci loolu euh, ñu ngi wax mot de la fin benn. mot de la fin di di la gërëm rek. Mm-hmm. ci invitation di la wax ne kontaan nañ trop thème bi am na solo. di wax ne nag ñu moytu rek ndax qui cherche trouve. wóolute la ñu wax. kese nit ki moom boo ko xasee ba tànn. wóolu ko rek lu am solo nee na wóolu ko rek nit ki boo ko xasee ba tànn parce que yaa ko bàyyi ca kër ga. Mamadou Samb boo déggee li Mbène wax toujours question boobu laa lay posé. lan mooy ah. sa dernier mot de la fin. sama dernier mot kon nu ma la ko waxee sànq rek. ki cherche tur boobu laa gëmul. gëmoo lan laa mën a gëm mooy que lan mhm. lu ma waxoon sànq nanu réglé te teey gëm seen bopp xam ne jigéen lañ jigéen dafa war a yem place jigéen jigéen dafa war a y woy nunuy wax toog ca a toog seen poccu ndey gars yi fekk leen ah. lu may wax rek nan bàyyi numéro yu bëri yi ngir yàlla war a bari sàmm nga baal ma doguma la sax ñoom tam ñu bàyyi seen doxani bari mhm. parce que la plupart si ñoom mhm. dañoo jàpp ne mhm. dañuy li li borom bi naan góor am na droit tax ñaar ñett ba ñeent mais loolu tam taxul ngeen am droit ne da di doxaan 4 ba 5 yéen mais mais man balaa may takki ñaareel balaa may dem di doxaan kon ci loolu jërë ngeen jëfati eh, émission bi xam naa ni fii lay xewee te it ku ci nekk li diif ci nag bi xajul ci cin li kon xam naa ni ci loolu dañuy tàggatoo rek di wax jërë ngeen jëf Salam. yéen ñi nga xam ne yéen ñi doon déglu kon merci beaucoup ajaaraama